ñu dajale fii tey nag mooy ni nga xamee ne tuubaa ci kanam baaxoo ne koo def ci ñaan yi nga xam ne sëriñ bi moo ko ñaanoon ci dëkk bi Touba ci kanam bokk ci kuréel yi nga xam ne ni ñooy dàkk bëgg sëriñ bi ndax bi ko sëriñ bi ñaanee rek la ko suñu borom defoon ndax moom waxtu nekk bala moo ñaan suñu borom def na la muy ñaan ba noppi ñu baaxoo nag di taxawu ñi nga xam ne ñoo néew doole ci dëkk bi ci wàllum dudd ci wàllu wér-gu-yaram ak ci yeneen ci anam commission bi nga xam ne mooy social nag nga xam ne fi ñuy jëlee seeni i fonds yëpp mooy di ko jaayante ndax Touba ci kanam li mu woote mooy murit bu nekk ñaari téeméer ci weer wu nekk ngir ñu mën a am ñaari millions murit buñ ko mënee buñ ko amee am ñaari milliards ci wu nekk ñaar fukki ak ñeent ci at mu nekk ngir bëgg-bëgg sëriñ bi nga xam ne ñaan na ko ci saayir ñu mën koo réaliser léegi nag ñu beraat beneen commission boo xam ne nag ci jëmmi nit ñi la jëm am nga léegi ci nit ñi la jëm ci mbooloo mi waaye lii moom ci nit ki la jëm muy taxawu leen ci wàllu dund comme ni ma ko waxee woon ci jamono ji nekk ñoo koy def ci kor gi ci màggal yi ak ci yëpp bu weeru koor gi yotee nag dañ koy gën a yaatal ndax weeru koor daa doon weer woo xam ne nit ñi li ñuy soxla wala day gën a day gën a bari te mu doon weer woo xam ne ci weeru Sëriñ Tuubaa yi la bokkoon ndax xam ngeen ne xasida googu nga xam ne nii bu ñuy dëdmal koor moom lañ koy tersoo mooy yaa xayra day in ata bil bishri ahlan wa sahlan wa taraiban bila adadi sëriñ baa ko def sëriñ bi mi ngi ko defe woon ca Gabon te jamono yam koy def jamonoy tartar la waaye li mu waxoon ne yaa bi in axtarini fa sukru wa in manaxta faridan wa sabru tax na du feeñ sax ci ni sëriñ bi waxe ne fii mu nekk ay tar la bu woor gi mosaan a jeex tey mu dé gungee kook xasida googu ñuy wax yaasal bu saaraati am ay xew-xew yu bari nag yoo xam ne dafa xew ci weeru koor ndax li kenn tëralewul mbir guddi gi gën ci guddi yi muy laylatul xadar ci weeru koor gi la amee kon nag loolu lépp bu ci dajee xasawatul badar tamit ginnaaw suba moom lay moom lay doon te mu doon am wàccuwaay bu mag ci lislaam loolu tax na nag bu ñëwee bu ñëwee tubaa ci kanam di ci jàppale askan wi ci ñi nga xam ne noonu la ko daan baaxoo def ren jii nag ni ñu ko defee woon mooy bi muy jub dërmal si dañoo def ab recensement tànn quartier yi nga xam ne jàpp nañ ne ñu gën a soxlawoo fa lañ nekk ci ñeenti xibla yëpp tasaare ko ci fukki équipe ñu recensé lu tolloog cent personnes ci sancaan yi képp ku ñu recensé tamit jëloon nañ sa numéro téléphone jël quartier ba nga dëkk jox la ab ticket boo xam ne nii wax nañ la bis ba ngay jël si loola. waaye ku nekk xam na ne jamono ji dañoo tasee jamono joo xam ne dañuy tasee dañuy aaye dajaloo bëri bi tax nañu defe ko nii ndax ko ñi ñëpp xam nañ ne daan nañ ko defee ci mbaarum Daaru Xudoos ma kilifa yu bëri di fa teew waaye comme ren li ñuy wax situation oblige moo waral ñu defe ko ci buntu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 Euh, quartier Mame Diarra Daaru Rahma Daaru Rahman Buluñ Jannatul Firdaws ñoom ñu ngi jëlee ci corniche bi nga xam ne moo féetee Daaru Rahman ngir ku nekk rek boo ñëwee man a jot ci liñ lay jox saa nga ciy sonn liñ leen war a jox nag mi ngi toll ci téeméeri saakuy ceeb yu 50 kilos ak juróomi téeméer ndax junni astafurlah junni saakuy ceeb ak juróomi téeméer yu 50 kilos loolu lañ leen war a jox ñu ngi programme woon nag junni waaye demande bi dafa gën a yokk ba ñu mujj yàgg prononcé ko yóbbu ko ci junne ak juróomi téeméer ak téeméeri saakoy suukar ak juróom fukk ak eh, ay diw bokk na ci ak lu tolloog ñaari junni yére yoo xam ne dañu ko war a séddalewaale ak lu tolloog ñaar fukki fauteuil roulant ngir handicapé yi ak lu tolloog eh, tàndarma ju bëree bari yoo xam ne nii lim bi mu ne su koo takk fu toll nii loolu lañ fas yéenee séddale li ñuy séddale tamit dañoo seet li nga xam ne moom lañ gën a yittewoo ñu koy séddale ndax boo xoolee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 kilifa yooyee nag ñu ngi ciy jiital Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na ko suñu borom dëgëral te àggale ay naalam yëpp waxtu Touba ca kanam bootee gis ngeen ni ciy taxawee jamono yi nga xam ne Cheikh Sidi Mokhtar radiyallahu anhu nekk na bi danaan jaayanteel juróom-ñeent nit bi nga xamee ne dem na ba nekk Serigne Touba di jaayanteel boppam ak juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent muy téeméeri nit waaye noonu lay dugale ci social bii loxoom social bi nga xam ne ci ak jaayante ak jaayante lay wéy gis ngeen bi nga xamee ne ñu ngi joxe basan bi lim bi ñu ci joxoon muy lim social ramadan daaw ba defoon na ci jëf ju rëy social bu ren jii tamit def na ci jëf ju rëy te moo ci jiitu ceeb bu bari suukar su bëri ak ak dugub ju bëri noonu tamit la ñuy sant mboolem kilifa yëpp bay wu ñu kenn waaye di sant tamit Cheikh Mamadou Moustapha mu sëñ Abdoul Xaadar ak sëñ Fall mu Cheikh Abdoul Xaadar ak sëñ Abdoul Ahad mu sëñ Abdoul Fata ak sëñ Makhtar Mbacké mu Cheikh Mamadou Moustapha Fadilu ak sëñ Fall Mbacké euh, maane ñu koy wax sëñ Galas Mané ñooñu nag li tax ñu tudd dañoo doon ñoo xam ne nii waxtu social soxlaa rek dañu cee baaxoo ànd ak ñun noonu la ñuy sant tamit ci bokki taalibe yëpp bàyyiwuñu kenn waaye di ci beral ak cant alaaji sëriñ Seck C C3S moom waxtu wu nekk mi ngi dugal loxoom ci Touba Ca Kanam waaye rawatina ci social bi ak ku ñuy wax euh, Omar Bayo ak sëñ Omar Bayo nekk euh, port ak ku ñuy wax euh, ak ak ku ñuy wax sëñ sëñ Abdoul Ka di maire dëkk bi moom tamit dugal na ci loxoom bu baax a ñu koy sant ak mbooleem waa commune bi yëpp ñu ngi sant bu baax a baax a baax waaye noonu la ñuy sante mboolem kilifa yi nga xam ne tàbb nañ seen loxo waaye di beral ak cant tamit le ministre euh, Serigne Abdou Karim Fofana moom tamit gis ngeen ne mboolem activité yu Touba ci kanam def mi ngi ciy dugal loxoom bi di gis ngeen ci jëfam démb tamit yónnee waan na xéewal yu yaatu yoo xam ne lépp mi ko jëmale ci askan wi te yëmu ca dafa wax ne nañ koy fàttali boppam ndax moom social jàpp na ne fàttali sa bopp la waxtu wu nekk nañ ko koy fàttali ngir mu si gën a jéem a jëf ndax xam na ne sëriñ bi rek ci leen ni daal di ngërëmul yàlla kon daal ñu ngi sant ñëpp rek di sant waa diaspora bi baax a baax ndax jamono ji jamono ju tar la yoo xam ne nii fépp la tare waaye rawatina diaspora bi ndax ñun feex gii ñu am sax di mën a dox suñu yitte ci bëccëg gi bu dee diaspora bi yaakaar naa ne demewu ko waaye teewul dafa mel ne lañ daan def ci at yi weesu li ñu def ren moo ko ëpp fuuf kon nag ñu ngi leen di beral ak cant di leen masawu di ñaan suñu borom defal leen tawfeex liggéey